salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna ku ci nekk ñu ngi lay nuyu ci sa ak sa sant di la fekk ba fa nga toog ñu lay wax tant ak ngërëm ñeer na la di la tatagal ah di la wax ni ñu ngi lay gërëm ci teewlu bi ngay teewlu émission bi nga xam ne ci tele bu mag bi lay xewee ci heure bu baax bi li ci àdduna ñu war a waxtaane li ci àdduna bi yëpp fu ne rek ñu war faa dugg ah jottali leen li nga xamante ni moo di seeni xat-xat ak seen i seen jafe-jafe ñun ñu toog fii ñu waxtaane ko di leen wax ni rek lu yàlla na mu na lu mu mottali daa jot te jot yomb ndax wax bu la ko yàlla nattoo bu la àdduna ñoree succès la waaye bu la dëgg ñoree rek euh, jàppal ne nattu la ndax mën ngaa wax à tout moment nga juum waaye bu ñu juumee rek ñu ngi jégalu euh, ci cadre ci cadre yi euh, saa suñu juumee rek jàpp leen ñu ngi jégalu jubluwuñ ci woon loolu ah, ma toog ak nag sama doom sama xarit Abdou Aziz Ndiaye géwal bu civilisé Ndiaye jaata nuyu naa tey de sa noir bu sa sàpp nga def dëgër ka ci wow koomu waaw kay yaa nga Medina Baye ba tey waaw tey maa ngi Medina Baye ba tey wax naa la ko bërki démb nee naa la si Ndiaye Zabo Madiana la yaakaar ginnaaw tey ak ëllëg waaye nag temps yi MC Niass mhm. dama jébbalu ci ñoom moom benn parti bi. ah jébbalu nga jébbalu interet parce que temps yi mi ngi lay defalal yu baax yu nooy nepp yoo ko nga dëgg kët. mais mais mais <laughs> mais ñi ngi ziar ñëpp di ziar àdduna ni ko maman Bella waxee léeg-léeg nga wax waaye nit matul nga juum xëy na ñi ci ñi ci wet gi la ñuy la déggee léeg-léeg ak ñun ni ñuy déggee mën naa seen dégg-dégg mën naa gën a baax ñu nit suñu dégg-dégg mën nañoo defe ne moo gën a baax waaye saay su ne rek ñu wéccoog ñu yéen suñu xalaat. mooy li ci àdduna loolu rek moo ko tax a jóg ma dend ak suma yaay ji nga xam ne saa yu ma ko nammee gis rek na ma gis ku baax ak koo xam ne xol bi dafa yaatu maman Bella maa ngi lay ziar namm la loolu nag. waaw kon namm namm naa da ngay daw pé ma daw di leen wax déwénati ci at mu bees mi di baalu ñëpp àq di leen ñaan ngeen baal ñu àq euh, yàlla boole ñu jéggal a euh, defal ñu taw féex ak tay siir bu déwén naree ñaaw yàlla dàq ren ndax at mi mooy suñu at nag. Ah, at mi nag ñi xam nga ñeenti weer yi Seydina Mohamed dafa am lu mu ci waxoon. wa waaye ñetti weer yi ci la gënoon taamu da doon wax ni même bu leen songee jamono ji nga xam ne xale ba badar buñ leen songee ci ñetti weer yi même buñ leen yéen bu leen song même bu leen nit ñi songee ngir bëgg a xeex ak yéen yéen na ngeen daal naxanteeg ñoom dal waaye bu leen leen song muy muy muy at moo xam ni ñeenti weer yi dañ cee taamu ba nii ñuy wax ak yow yaa ngi ci tamxarit yaa ngi ci ay laajim yaa ngi ci ay ñaan te taamu nañ ci dem ci bopp jirim ñaan ci dem ci armeel yi ñaanal na tëdd dem seeti ci ku feebar tusngalu bi aadala yooyu yëpp boo gisee ñu koy def di wan ni weer yi moo gën weer yëpp at mi moo gën at ñëpp yàlla na nu yàlla boole nag ca xaaj ba jëm déwén ci darajay Seydina Muhammad man ndekete yow sama doom oustaz la ah waaw man maa ngi raté man sama doom xam nga dem naa ba mënatuma koo canaliser deux heures day naa ba mënatuma koo canaliser daal ndax ko <laughs> man moo tax ma di deux day yàq nit que man demati naa ba mënatuma laa canaliser nii man xamatuma kan laa gën kan laa gën dem dem naa ci kër délégué de quartier yi seeti Ousin Dom Ba borom Pikine ci laa bokk dem taaja bon fa dem maanaam dama doon wër ñu ne dem ma dem kër Cheikh Modou Gueye bu Serigne Moustapha Bassirou nga xam ne moom lañ dénk pencum sëñ Moustapha Bassirou muy waaj màggal gi Cheikh Massamba xam nga Massamba damaa engagé wu ci moom ma Massamba dem naa fa ñu ne déeta waaye yem ma foofu de ma jubal man daal fu ne laa dem dem naa ba kër booy ñaa def nga la saf daal taaji waaw parce que amul tax deux heures chaque jour day xool askan wi li leen neex mu leen koy jox yàlla yàlla def jàmm amiin ah, sama doom nag tey ngeen di loon ma thème bu am solo mhm. muy ngor ak dëgg mhm. nan nga nan nga mën a xalaate loolu ba indil ma ko ak ni mu manqué xam nga ngor def ak dëggu danoo bokk place waaye am na ñoo xam ne dañ koy jaawale te an bokkul mm-hmm. am na ñoo xam ne dañuy jaawale fulla ak dëggu man ngaa am fulla te sa bopp wane fulla te doo dëggu mm-hmm. maanaam man ngaa xaaj ndaka te doo dóor maanaam nga nga signalé gauche far jàdd droite ngor ak dëggu nag bala moo mën a ànd maanu am ca ngor ak dëggu bala moo mën a ànd maanu am ci te nit ñi léegi maanootuñ dañuy dugg ci loo xam ne dañuy ñëw léegi dugg ci kër bëgg a nettali la nekk ca chambre à nit ca ëtt ba la yam ci ëtt bi nga yam de nga bëgg a nett li nekk ci chambre à coucher nit nit nii la mel di juger nit di wax yoo xam ne bu ñëwee nga nga nga nga bëgg am fulla te dëgguwoo mhm. kon léegi dañ naa féq day taxaw mhm. te loo xamul ba nga reeree démb ci guddi ba xam dina rees waroon nettali géntu jàmbur bay nettali sa gént yaay fan lañ jëm xanaa réew mu toj dëkk bi lakk doom bee fi des ndax li nga wax nii moom moo ñu manqué xam naa moom euh, at mi trophée yu baax yëpp jël nañ ko mais bu trophée maanu amoon duñ ko jël Sénégal du ko jël ndax dañoo ñàkk maanu mm-hmm. wax nag kenn du ko yërëm dañ koy wax parce que ngor ak dëggu maanoo koy la parce que nit ki soo maanoo rek mm-hmm. di nga maanu ci lépp soo maanoo di nga maanu ci loo xamul soo maanoo di nga maanu ci loo fekkewul nit ku baax day wax xaw ma nit ku baax day wax fekkew ma nit ku baax day xam yëguma donte boo xamee sax nga bañ coow da ngay wax yëguma mais am na ñoo xam ne ñooy fekkee li Youssou Ndour naa moor daje del sóoraale am na ñoo xam ne ñooy moor daje fu nañu nekk fa fu nañu dugg fa te ak dal amuñu ci dara loolu moo yàq àdduna bi actuellement parce que nit ñi euh, dëggootuñu benn dëggootuñu parce que doo xàmmeetoo kii kii xàmmeetoo ko. nit ñi amatuñu ngor. ama ama amatuñu dafa mel ni. suñu sidditu ngor yi moo dagg. dafa mel ni suñu sidditu ngor yi dafa dagg. parce que nit ñi ñoo amatul ngor te ngor boo ko ñàkkee nit bu xësee ba ñàkk ngor. mooy ñàkk na lépp parce que boo ñàkkee ngor mooy valeur bu la yàlla defaloon ci àdduna ñàkk nga ko parce que amatoo ngor parce que ngor moo lay conditionné pour ngay def yenn yi ngor ngor pour te dire moo lay moo lay moo lay guidé ci ci bi nga war a am parce que Abdou Aziz li ngay jomm ak li ngay ragal ñoo yem mhm. waaye boo ñàkkee ngor da doo doo ko sóor li ngay jomm ak li ngay ragal day mel ni benn la parce que da ragal dara dangay ngay jomm dara nit ñi foog ne danga koo ragal nga ne ah man de lii jomm naa ko mhm. man de jomm naa Abdou Aziz di ma dégg ci loo xam ne da damay xeeb. xam nga léegi léeg da ngay euh, defoon nañ ko fi benn jeu théâtre gis ay image xamuñu image nu mu demee ñu jël mu am njaboot dañuy jaar ci digg bi sax Youssou Dieng ndax suñu frère la mu commencé di tourner benn film xamuñu film lu mu filmer ñu bëgg a yàq àddunaam bu dul woon teelu la wax ak fameem wax ak ay ay soxnaam wax ak ay dëkkandoom mais àddunaam bu doon noonu la demee yàqu na bu yàgg ñu jël ko tas ko ci internet te xamuñu nu mu demee waaw waaw waaw waaw Abdou Aziz loolu dañ koy def ñëpp man mi def nañ ma ko mais xam nga boroomi nit soo ko ko defee mën naa bañ a yàgg ci internet bi li ma metti def nañ ma ko. gis nañu benn interview ma def ko xëcaa mi laa ko defaloon tey. ñu xëy jël benn film porno ñak tegal ma ci. daal ni xool leen balaa artiste comédienne u Thiès bi gëmul dara. li ma may chance mooy samay nit dañ koo teela gis ñëpp intervenir mhm. ñu teel koo génne ci internet bi suñ ko génnewul woon loolu way wu may topp la te loolu ñàkk a maanu mi ngi koy mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi indi loolu ak bëgg a yàq nit parce que nit boo ko déggul ci dara bul fexe fekk ko ci dara nit boo ko déggul ci dara bul fexe mu def dara mais Sénégal ñu lool nit ku ñu déggul ci dara faaw ñu lijjanti ko ba dégg la ci dara te xamuñu yow yan effort ngay def pour ñu bañ laa dégg ci dara dinga nga di nga di nga daw loo xam ne bëggoo fa daw di wuute loo xam ne bëggoon nga ko fekke lépp rek ngir bëgg ne ci sa bopp kenn du la déggal dara parce que bu ñu fàtte nii aussi ñun ñii toog ci télé yi dañoo am famille dañoo am yaay am papa ñii am ay doom ñii am jabar am ay sœur am ay frère am ay nijaay am lépp bu ñu xëyee rek dégg dara ci ci seen nit am ay fans surtout ndax fans yi sax ñooy gën a sonn. Mhm. soppe yi la sopp. ñooy gën a sonn bu ñu xëyee dégg dara ci yow daf amaana daf leen di naqare am na nu leen di naqaree noo xamante ne ni sax warul woon du ko naqaree say mbokk. Mhm. parce que ñoom ñi la bëgg te gisuñu la dañuy am beneen cofeel bu parce que gis bi manqué na leen. Mhm. gis bi manqué na leen mais lépp rek ñu ngi koy tënk ci. bëgg ni maa ko njëkk a wax. Hmm. day mar rek gis nga hmm. actuellement nii. Hmm. day toq rek ñu mar. waa xam nga xam nga ñu xool sax liy toq la day toq rek ñu mar xam loolu nag léeg-léeg. dafa am ñoo xam ne nett li da leen di dundal wax lu lu dul dëgg da leen di dundal yow mii nga xam ni su la nit xamee xam ne liñ naan ndaanaan day fausser rendez-vous ci fausser rendez-vous nga dëkk ngir bëgg xam sa bopp xam fi nga bokk. Bella bu wàccee ma ngay nelaw xamoo ci dara lijjanti woo lu ko suturaal léegi lu sàgg sàgg nit rek ngay xool même artiste bi dañuy xool loo xam ne information bu négatif la parce que Wally dem na fi Maroc bërki démb lu gaaw gaaw ñu ngi naan def na soog deful soog yow tegoo ci sa bët nga bëgg a nettali loo xam ne gros mot la gis nga léeg-léeg nit dama Abdou Aziz lu tax demoo fii bëgguma fekke lépp balaa yu neex yi ak nit ñi di daje di kii bëgguma fekke lépp. soo bëggee fekkee lépp doon waxkat te boo doonee waxkat àdduna génn. àdduna tukki léegi nag dañuy xool naka lan lay créer ba pare léegi nit dafa am fit nañ ko maytu bëgg a wax lu ñaaw di ko vocal man naa daw man ngaa wax lu rafet sax ñu dagg fa nga ne mo mais Abdou Aziz loolu foofu ngor day daal di dikk ndax boo waxee sa nawleb ngor. Mhm. sa nawleb gor su gore sax laa lay wax. Ah. parce que gor yomb na mais gore moo jafe nga waxtaan ak sa nawle. Mhm. yow bu fekkee as gor nga rek te gore gi ngay wax nekk ci yow. Mhm. yow na ko dee génne. maa bu yow denc boobu ngay foog. moom su ko génnewul bu bu ko bu ko génne xam nga lu tax gor su ne da ngaa war a war a moytu ñu taaj la ni la yaa fi waxoon te doo ci mën a dindi dara. fi ngay envoyé message bi moom mu ngi envoyé message bi nu mu la ki jël vidéo yow ngay sénégalais pire juddoo fi nga war a juddoo juddu ci pencum dëkk bu mag kajoor kees ñu monte ak ay ñag ki def loolu boo koy envoyé message bi mi ngi tas say message ba pare di créer ay wax dem nañ ba ñoom ñi nga xam ne ñooy yàq dañuy dugg sax ci famille jàmbur mhm. pour tas ko fan lu ñu jëm léegi nit ñi dañu ñàkk seen valeur ci kaw wax ci lu amul léegi nag information bi tamit site yokk léegi site site yi lu leen neex bind ndax lan bëgg seen vidéo jar. ak maa ak maa ko njëkk bind. ak maa ko njëkk bind gis nga nit ki soo koy bindal dara da ngay xool sa aqulaay taala nit ki soo koy waxal dara dangay xool parce que gis nga lim naan àdduna dafa am waykat Moustapha Ndeysaan. war nga koo xam Moustapha Mboro di tama way yaa ne Mboro waaw Moustapha dafa way benn morceau bu am solo naan àdduna mbaa bu ma demee ba tekki doo wax fa ma doon xëy di añee àdduna ki paar ga doon rootee ataaya te boobu amaguma yoon wu ma jaar mbaa bu ma demee ba mat duñ ma wax fa laa doon naan dañ la koy wax dañ koy fàttali naan àdduna mbaa bu ma demee ba yor kat kat nekk ci ay yite romb nit mbaa dooma ko xase ne damaa soppeeku mi ngi wax way woo xam ne Moustapha xëy na way wi kii na ko waaye way woo ak rëy uh-huh. mi ngi wax àdduna fa ma fa ma heure sangu fekk ma sangu changé fa ay yére tan naam dama koo jàpp ni ñooñu man man ak ñoo ma bokk mbaa bu ëllëgee du changé ñu ni ma damaa bew uh-huh. parce que nit kii romb rek nekk ci ay activité su ma xëyoon léegi yor oto nekk ci nga ne ma Aziz gaawal fi mu nii dañuy na ma gaaw romb gars yi tàllal leen loxo ñu ne léegi fuuy na gaaw nañ ci loolu dafa changé gaaw nañ ci loolu Aziz mii dafa nii dangay romb sax nuyu leen léeg-léeg man dama am sama benn rakk du ma tudd tur bi artiste la dëkk ci benn dëkk ñu naan ma mi bu du nuyoo diw mi du romb ma ànd ak moom benn jour ba ko dara mais bu jubee nit ñi da ngay gis ko ak téléphone am di mel ni lu muy luy wax ak ay nit mel ne dara ñoru ko maanaam mel ne kuy wax ak keneen mhm. ma ne noo xam naa ñi dañ mu rombaat ñeneen pour lan dëkk nag ay artistes bëgg nañoo ànd ak artistes yooyu noo àndal ak artistes yooyu mais bëgg nga ngaa tuutal kooku ba tax na bu la jubee rek nga aj sa téléphone léegi man maa ngi ko doon sikk waaye maa ci yam kenn waxu ma léeg-léeg ñu jël nit yóbbu ko foo xam ni weer ko foo xam ni dëkkal ko foo xam ni jël ko teg ko ci pénc mi di ko te billaahi wallaahi nitu kersa la xamul lu ñaaw xamul lu bon Mhm. Tabella li ci àdduna moom moo mën a yee ñi nga ki nga xam ne da doon def lu bon amaana bu déggee wax ji ñuy wax dina ci góorgóorlu ba def lu baax. Abdou Aziz gis nga gis nga nit nit nite daf xamul dara. Hmm. ngor dafa war a nekk ci nit. ak lu mu mënti demee nit dafay gore Abdou Aziz boo waxee ak sa nawle. yaag moom rong ngeen tëju ci biir néeg wax nga la waay su ko génnewul bu ko wax mhm. soo jëfee sa nawle ngeen ànd jëf mhm. yaag moom dong ngeen defandoo mhm. waxandoo seeni vocal defandoo seeni vidéo lan moo war a mën a war a mën a jar àdduna dox dox dox dox wala mu neex wala mu naqari ba nga war koo mën a toroxal lan man Abdou Aziz nit bu toroxal nit après lan nga ciy gagné moom mooy sama problème weer nga ko toroxal nga ko famem génn nañ ci moom àddunaam génn ci moom après yow lan nga ci gagné yow lan nga ciy gagné rien que pour bëgg a toroxal nit. rien que pour bëgg a def nit lu bon. rien que pour bëgg destabiliser déstabiliser nit. moo am actuellement ci suñu dund gii te loolu. biñ ko dalee def ba léegi gisuñu ñu jëmale ñu kanam benn non amu amu amu résultat jëmale wuñu kanam benn yoon parce que yow tant que toroxaluma Abdou Aziz Abdou Aziz du am jàmm tant que ànduma ak Abdou Aziz ñu yëkkateendoo di dóorandoo di waxandoo di defandoo suba ma dem feneen toog yàq Abdou Aziz Abdou Aziz man man man man man man man du ma am jàmm bokkul ak ngoree di jiitu na ci ñàkk personnalité da koy ëmb ñàkk naw sa bopp da koy ëmb ñàkk gëm sa bopp da koy ëmb gis nga nit ku gëm boppam Abdou Aziz waaw du def luñ koy xeebee hmm. nit ku gëm boppam ah. du def luñ koy xoolee hmm. nit ku gëm boppam képp ku mu taxawal dina la naw hmm. képp ku mu taxawal dina la jox sa gëdd mais dina xam ni kenn gënu ma dina xam ni nit nga may nit di nga xam ne li nga am war naa koo mën a am. Mhm. mais dafa am ñoo xam ni xëy na bind la tamit muy nattu ci ñoom. <laughs> yàlla moo leen ko cërale xëy na. xëy na nattu la yàlla moo leen ko cërale ñu mhm. mel noonu. deme noonu yàlla bindee leen noonu. Mhm. am na ñoo xam ni dañoo dañoo dem ba doo ko mën a tuddee ñàkk fayda nga koy mën a tuddee wala wala wala wala wala di nga koy mën a tuddee. mais maa soxor am na de. Hmm? soxor xool nit rek ba mu neex ko. man damay léeg-léeg dama naan istadu ay rab. wala luy dugg nit nit day ankay parce que amul tax <laughs> maanaam comme léegi lu dal ñu ne rab la da nga naan istatu ay rab mhm. dama am suba benn xaritu Abdou Wahab Fall borom AWC chéri awa maa ngi koy nuyu yaay làmp mhm. Abdou Wahab Fall danoo toog di waxtaan ma ne ko Wahab lu tax nit di soxor mu ne yàlla dina Aziz mu ne ah, ma defa bind te yemalewul bay wax de mhm. mu ma tàllalal sa baaraam may tàllal Wahab ne ma bii ak bii ak bii tolloowul waaye bii leen sut munu ma yàlla noonu la bind tey man munu ma bu nit nanguwul yàlla tracé nga ne déedéet mu tracé waat nga ne déedéet boo may boo maytul yow lay dettel mhm. te am na ñoo xam ne mu ne ma Abdou Aziz bu yóbboo na nga góorgóorlu ba àddunay tukki duñu masa nangul nit ci lu mu mën a doon duñ ko ko nangul mhm. moo xam mu jekki-jekki tekki moo xam mu jekki-jekki même nit bu ne aman ko dañ ko day ñàkk sax nee na ñu koy ñaana ñu koy ñu koy gën a yéene mu gën a ñàkk. Uh-huh. léegi nit dem na ba day mel ni moo bind nit day day toog di mel ne moo tracé nit. Uh-huh. di wax di wax ay wax yu doy waar naan kii nii la war a mel kii nii la war a mel yàlla mi bind jaamam. Uh-huh. judduloo ko. sàkk ko may ko lim ko may. loo koy soxore Abdou Wahab Fall am na lii moo moom lii moom moom lii lu ma koy soxore mais dafa am ñoo xam ne soxor dañoo dem ba jël def ko grade mhm. beneen bi mooy personnalité du dab nit da nga ko judduwaale kenn du ko jeex mm, gis nga bu la yàlla xasee ba bind dignité Abdou Aziz Ndiaye géwél bi sulusé mi ngi nii noonu dignité gi léeg-léeg ma am benn mbasin di ci suturaal sama bopp ci kaw personnalité mu mel ne téeméeri mbasin la am loolu ci nit lay nekk nit mm-hmm. da ngay naw sa bopp mm-hmm. man fa avant ma fan kenn avant ma gëm kenn man Abdou Aziz Ndiaye Ndiaye mi san sama maama doon wuree dërëm mbëggooy sama maam fat jaaraay sama yaay mamadooy sama baay man mii maa njëkk a gëm sama bopp bala maa gëm kenn mm-hmm. ku ñemee nag dal naa dey Abdou Aziz ku ñemee dañ laa dey nit day gëm boppam man loolu laa gëm ah boo ko gëmul xam man ni may doxee ni may waxee sax ba ma xoolee xam ma sama bopp damaa neex man damaa fan sama bopp ah, avant tout gis nga Abdou Aziz man loolu dama ciy insister bis bu ne moom ma waxtaan teeg suñu génnee gis nga yàlla dafa bind te yamalewul dafa jox ñi tuuti comme ni nga waxee jox ñi gaan ñi mu xañ leen kon yàlla noppi na mhm. te am na ñoo xam ne ba fi ñuy nekk ci àdduna duñu mës a duñu mës a duñu mës a toppee mhm. loolu day am ci ay nit am na ñoo xam ne boo dul toppee nag noonu lan lay def boo melee ni tikke law bi am na ñoo xam ni doo toppee <laughs> foo toll yor say création am na ñoo xam ni dañuy soxor naan loo wax loo wax waaw mais am na ñoo xam ne yàlla bindul leen ñuy toppee bind da cee bokk ba pare sax mën ngaa toppee ma ñëw ma ñëw ma ñëw ñaanu waajur hmm. nekk ci waaw comprendre nga nit yi dañoo war di nangu hmm. que ni Abdou Aziz mii lii la ko yàlla may ah, mu nangu ko <laughs> lii la ko yàlla may mu nangul ko ko <laughs> xam nga li wax Bella Sène lii la ko yàlla may mu nangul ko ko parce que yàlla du jël alalu Modou jox ko faatu te yàlla ko mu nata fay du la liggéeyloo hmm. comprendre nga yàlla ku mu nata fay du la liggéeyloo gis na nit day nangu mais Sénégal loolu moo fi amatul ndangu googu noonu. moo amatul Sénégal. da ngay gis Bella Sène da ngi di dem yoonam yow yaa ngi xool bëtu Bella Sène daf maa iñaane lii. ndax man dugg naa fi Bella Sène damaa iñaane lii fekk Bella nga toog ca loo xamante ni nii moom boo ko xamoon yow doo wax loolu fekk Abdou Aziz da nga toog ca loo xamante ne soo ko xamoon doo wax loolu gis nga nit day nite dof xamul dara comprendre nga li ma wax nit day nite dof xamul dara nit day nite dof xamul dara gis nga Bella li nga wax noonu dafa am solo yow bala ngaa iñaane maa ngi la koy wax sànq bala ngaa iñaane nit danga nga koy xam. exact xamoo fu mu juddoo xamoo fu mu bokk balaa am na loo xam ne du sax ay juddu ay yooyu nit moo yàlla moo koy may. yàlla mooy maye. yàlla mooy maye. Mhm. balaa ne dama ni ñu déglu ko Abdou Aziz ne hey ñu déglu ko loolu yàllaa koy maye safa la. mais boo ko nanguwul nag da ngay sonn. dama lay dog ci safa boobu. boo ko nanguwul da ngay sonn. bon sonn iñaan xëm. ñaan xam. adduna bi boo fi nekkee da ngay giifal sa fii man Abdou Aziz am na ñoo xam ne nag glace du ne seen xol. man Abdou Aziz man du wut noonu. am na ñoo xam ne glace xam nga bu may nelaw nelaw yu paisible la xam nga tax. waaw du ma wut noonu pour man a bëgg damaa belli Abdou Aziz tey ban parce que man sa invité wax dëgg yàlla dafa doy waar. daal waaw dafa doy waar xale la boo xam ne xam naa li mu xew moo tax. Mhm. moo tax mu mu ñuy kii nii waaye fii 2STV la man man man tëlli tëlli jeeg mbarli mbarli ji yàgg yàgg di nga ñëw. yow pare nga de maalaw birima ak maalaw labba. maalaw may sa pendu joor xam nga law be mooy law lawtan soo bëggee law ne ci plateau da ngay ànd nag kuy law. nga ne lawbe mooy lan. mooy lawtan boo mhm. bëggee boo boo day ji garab bëgg mu law. Mhm. fexeel lawbe roose ko maa la ñamal litre. lawbe waaw. ah nga la may morso. kon lawbe am na ay secret. daa bari xam nga sëñ Modou Gala Saw suñ Tuubaa ko teggaleeg jaay mbaam. waa dafa gëm sëñ Manumbe Xabaan tax na seexal da ko jox ko seeseen xalifa général la mi ngi noonu kon nag maa ngi lay invité koo xam ne réew mi li tax nu koy déglu mhm. ay façon yi boppam mais am na ñu ne moomul wax ji moomul wax dégg ci ay nit waaw waaw loolu day leer tey tamit salaamaaleykum Tické dèjà yéen rek yéen rek dèjà rek waruma leen fay parce que. ah yéen toogaguma sax ku nekk jàpp ma ku ne suq benn mbagg di yóbbu. dégg nga ah boobee seen tardement yu métti yi ngeen yi ngeen tardé de xam nga xew dafa sonal nit. xew dafa nga waxatu sax ci biir nit nit ne la yaa ngi waxatu de. Mm-hmm. mun la déedéet waxatu ma doon raay. dama doon raay nuyu naa la sama invité bi tëkkee nuyu naa la. fay naa la salaamaaleykum maa ngi nuyu àdduna maa ngi nuy international ak national ak Sénégal. dégg li déjà man dan maa bëgg ba pare. soo gisee may xaw a di sànni ko firaale nit ñi dañ ma bëgg. Ah, ah, loolu yàlla dogal moom du dund nañ baaraam de. nuyu naa tonton Abdou Aziz Géwal VIP Sinisé bëgg ma yàgg maa dugal ci xolam ba dara du dara tubaarikàlla macha allah. mu ngi ni toog mbokkum yaay Fallou Couture bëgg ñëpp ñëpp ko bëgg. sama waa ji ki yaatal waa Pikine. Fallou Couture ki bëgg waa Pikine. ki defar ñëpp tubaarkal ku xool si moom rek da ngay normal. Mm-hmm. normalement maa moom li nu bokk dafa bari. ba pare ëlbatiku bokk label sunu label. dëgg la xam nga kon Touba Ca Magal li ma tàqalee moom ba fee bopp xar yaa bopp bokk bopp xar yaa bokk maa ngi lay nuyu di nuyu waa Thiès gépp xam ne tubaarikàlla li Youssou Ndour di way naan miin na Dakar waaye ma ne miin naa Thiès maa ngi nuyu waa Thiès gépp tubaarikàlla ñu ngi may béggee adduna nag actuellement ñu may seetaan ndax bu nekkee ci yoon bi mm-hmm. dèjà rek sama téléphone bi dan ma woo ba bultu bi activé boppam ah, bultu bi moo activé boppam parce que da nekk ci télé bu mag bi télé yu jub ci télé bu mag bi jëm moo tax nga xam biir ma ne àdduna ngi lay seetaan ba pare ba pare ndoxu tele bii war nañ cee wax de waaw xam nga numérique bu bees bi la nag kër gu <laughs> bees ndoxu télé bii waaw numérique bu bees ba pare ñun technique yi ñu yor du ñu ay malaaka de ay malarka la. ngeen ndoxu ay malarti ngeen ndoxu télé bi man ndoxu 2S bi man lii musuma ko. gisoo ko ci benn télé de wër nga réew mi juróom ah, yu rafet. gëj moom ci ay neexul ma kenn euh, tey dañ doon waxtaan ci ngor ak dëggu. yow nit ku ngor nit ku gore ak nit ku dëggu pour yow nan la war a mel waaw xam nga léegi la nit ku gore ak nit ku dëggu te balaa ma ay foofu nee naa la dama am loo xamante ni su ma toogee te waxuma ko. Mhm. day da am lu jógee ci man ci journée bi. mënuma mhm. toog te du ma ba tey damay nuyu sama yaay. ndeysaan man sama yaay ba tey dama koy nuyu. man pour man ba tey mu ngi fi man pour man ba tey mag ma mag moom chaque jour ñu ngi fanaan maa ngi koy ñaanal yàlla suufu daaru salaam oyof ci kawam ci barki Cheikhul Khadim di ñaanal sama papa ak sama tante yàlla suufu daaru salaam oyof seen kaw di ñaanal ñi nekk prison yàlla na leen bàyyi ñu dellu seen kër yi ñi nekk hôpital yàlla yàlla fëgg seen bopp ban dellu seen kër yi yàlla ñëpp am jàmm yàlla xool yëpp neex ci barki Cheikhul Khadim di ñaan yàlla ne plateau bi ma toog nii mhm. yàlla na suñu borom dimbali ba du ma fi wax leen lu ma doomu aadama di jëppee su ma fi jógee yàlla naa fi bari soppee te yàlla naa fi am lépp lu bees loo xam ne ñu sekkoo ñun ñi ak mboolum julli ak ci barki Cheikhul Khadim mhm. léegi nag ci wàllu ngor gi nga dugg. Mm-hmm. ak ci lan. ngor ak dëggu. ngor ak dëggu léegi jamono jii nag bëgg ngeen dégg dëgg ngor ak dëggu moom léegi noonu dafa am image. ngor ak dëggu ko def da ngay belli da ngay am te doo diw. Mm. ngor ak biir ku jamono jii da ngay am te tubaari kàlla fan si topp la nit ñi bëgg la. lan gore di moom képp koo def moom na la leen saa yow dégg lu ñaaw. dégg lu ñaaw waaw. nit boo xasee gore di na la leen saa yoo ñu yeewoo ci lu ñaaw rek ngay dégg te moom ngay dégg. nit ku gore nu muy mel selon yaw nit ku gore day gore te du dëkk embarcadère li ko gore dëgg day gore te du jege côté embarcadère. yow sori woo embarcadère fi mu. te ku gore tubaari kàlla macha allah day mel ni yow wala mu mel ni tontu Abdou Aziz mi toog ndax yéen dèjà gore rek mënta weesu gé ngeen di jël seen ni sous-estimé ko aj ko ca kaw a kaw a kaw kaw te mu leen ni kii melul nii mais gore doo nga leen topp. nit ku nit nit ku dëggu. nit ku dëggu kooku saa su nekk dañ naan dafa ragal. ku dëggu dafa jeg ak ragal. dëggu hmm. dafa jeg ak ragal dëggu ak ragal ak ragal kon nan nga leen di définir parce que sore nañu ñoom ñaar. sorewuñu. Hmm. dëggu ak ragal. wax ma lu tax sore dëggu ak ragal xam nga tax sorewuñu. Hmm. saa yoo dëggoo. tey jii maa yow tey bu nu jotee mu leer na ma ne man mii nan tey man maa la tooñ. tontu Abdou Aziz jóge fee tey ak sama pànk man damay leer na man mii man maa la tooñ mais sama pànk tey nit mun na la see gis ne la ti kelobee bella moo la tooñ. ndax day ragal sama làmmiñ or que ne mun na ne kooku noonu dafa ragal fekk ragalul pourtant ci dëgg la ko teg. ci dëgg la dëgg la ko riig waaye dafa ragal dafa ragal làmmiñu tikke. ba wax ji ak wax ji. loolu dafa am li nga gis ne ku ragal làmmiñu doomu aadama ba du ko wax dëgg nag. ku ragal làmmiñu doomu aadama waaw loolu moo indi ñàkk dëggu gi nga mm-hmm. xamante ne nag moo nekk ci ci ci actuellement ci réew mi ba pare mm-hmm. nag jëmewuñu fenn nag. ne ba ngaa dégg dëgg réew mi ku bëgg lijjante ñàkk dëggu gi. Mm. boo saagoon di nga conjugué sa bopp. lu tax réew fii nii ñu dëggatu boo compté dix personnes lan. mais mais mais mais. ak ñaata doomu aadama ñoo fi nekk. mais ticket foofu faaw nga leeral ñu parce que euh, lu toll ni Sénégal. waaw nga ne lu lu dix personnes daanaka ñoo fi. fi dëggu waaw. naka la ñàkk dëggoog ak lan faaw nga parce que li ci àdduna moom boo fi ñëwee wax ji day leer nañ tegu ci taabal ñooñu ñàkk ñàkk dëgg waaye war ngaa xam ne tubaarikàlla man du ma ragal maa loola bak bir ma may sa peen joor yaay kuntaa kinte mbokkum yaay Zeyna la ah, ngi ni toog te dèjà yow rek ndayale ne plateau bi tubaarikàlla lu fi ñëw gii bu fi téeméer doomu aadama nekkee dix personnes ñoo xam mm-hmm. gis ñaañu jote ñoo xam ne lu leer na le kii diw mi moo tooñ diw mi ñu jël dëgg nga jox ko ka tooñ Sénégal nag xamuñu nag ku fayu nag ku tooñ la du xam te duñu xool ba ñu lay tooñ sedd ga mu sedd ak ban lay tooñ la nga na pat def sa silencieuse boole woon dara ak eh. man moom bëgg ngaa xam nga tax loolu Sénégal boo fi nekkee nag nan wax <laughs> boo mhm. nga safet ñu togg la suluxu te man damay tooñ ah. man damay tooñ moo ëpp déedéet moo xam nga la moo tax man lin may tooñ moo ëpp man doon naa koo xam ne tontu Ablaye yëngal leen di nga ma tooñ deux ans jàpp trois ans du la tontu waaye bis ma la tontu àdduna dégg ko. waaw ndax dafa mel ni patt sa yëf la. waaw parce que dañuy gis tout le temps da ngay noppi da ngay noppi ak loo mënti dégg ak la nit ñi mën a wax. dama pate da ngay noppi. waaw loolu dafa dafa dafa dafa dafa metti ci nit bu siiw. parce que da ngay am ay mbokk moom laa doon wax léegi ak Abdou mhm. Aziz am ay rakk am ay lépp Euh, des fois nga tijji internet bi waaw bokk ci famille bu rëy des fois nga tijji internet bi ñu lay daggal ay saaga di la waxal wax yu ñaaw te ñuy jugé xamuñu la loolu nan nga koy dundee léegi nag waxkatu yu ñaaw yi na la leen kuy wax lu ñaaw lu ne dukkul fa mu jëm fa mu jóge la cosaanoo ndax boo xasee ñaaw ci lu ñaaw da ngay dëkk oh. waa te man damaa yor noppi garmi yoo xamante lu baax laay déglu sama bët yi tubaarikàlla yëng na damay dem ba ci commentaire boo xam ne mu leer ma li négatif la xaw ma lu ma ko nangoo xool si leneen laay nekk beneen lëbal a góorgóorlu te dama seetlu ba ma am na ñoo xamante ba ma dalee dagg seen xol ba tey suñu borom dafa maa gën a teg lumière maa ngi tàkk dagg seen xol damay dagg seen yaa ngi laa ngi laal na point bu am importance dalee dagg seen xol dafa mel ni tiraillement am xëccoo parce que yow ñan nga war a dagg seen xol quoi laa bëgg mu wax ma ko daal xanaa ñi nga xam ne bëgguñu ma ñi nga xam ne tubaarikàlla yàlla la bañ ci réew mi ah, di liggéey tubaab te bu la neexoon toog Thiès war di prix ba wala ngay wax du longaa ah, ah, ndax buñ sañoon tey tey doo am loo lekk te loo lekk da koo yalwaan Mm. noonu ngi fépp nag. noonu ngi fépp noonu ngi fépp. noonu ngi ah. boo dajee sa noonu nan ngay dundee ak moom parce que am na ñoo xam ne mënuñoo maîtriser seen noonu mais xam nga Sénégal patak organisé da cee baax ceel la leen fa jëm yow doo eski doo lan la la nit ñi war a ragalee laa comprendre quoi lan la war a ragalee xam nga li ma ragalee mooy mm. yoruma audio bu nit di partagé dafa lu ñaaw lu nit di partagé ma yor làmmiñu gar boo xam ne tubaari kàlla la ci man damaa tàmm wax lu baax. mais da ngay tàmm wax lu bon. jële moom sama yëf la parce que am na benn jour boo jëloon fan yee passé benn jour déggoo li ma la wax man fi mu ne de est-ce naa beneen jour kooku bàyyi naa ko jële sama yëf la ban jour la nu mu tudd ah laaj naa la ko yow mi xam ne yow mi waxoon benn jour kon da yow d'accord nga da ngay jël non man moom bëgg nga dégg dèjà man damay jëlee xam ah. damay jëlee mhm. man ku ma wan mbaax tubaarkalla ma jël la waaye tubaarkalla balaa kenn def li ko li ko li ko saf lay wax muy muy naboudage yow man parce que man diggante boobu daf maa jaaxal parce que man damaa jékki-jékki rek gis ticket ak naboudage affaire bi jaaxal ma torop mhm. kañ ngeen ànd ak kañ ngeen xamante parce que tamit yow ci réseaux sociaux yi nga nekk noppi woo mhm. noppi woo du ma mës a noppi nag ah. du ma mës a noppi nit ñi ne dañuy xaw a réere mbir man bi ma xamee naboudage rek la yàgg na mm. am na ay an on ko que suñu borom lu nekk ak fa mu koy dogalee waaye ba ma xamee nabu ak léegi yàgg jëflante moom teranga mu yàgg maa teral boobu ak léegi yàgg na boobu tubaarikàlla melu ma nii fu mu ne nag sëñ bi dafa yokk cere doolu ñeex taraa ngay bàyyi fall nit ñi daal siy jot waaye maa ngi moom yàgg na noo jëflante ci lu baax nee la ma ci lu baax mais man damaa gis seen ànd bi mu commencé ànd ba léegi foo toll si di ngi reprendre coow li bali wax ji bari ku nekk di wax fii am njaay jàppal ma jóob indi faal joxal njaay nan la demee noon ba wax ji bari danga nga da nga amoon yeneen xarit wala da nga da nga da nga nit ñi seen ànd ak nabudage moo la neexul wala danga nga bari ay géer parce que da ngay da taxaw ci xew n'est-ce xew dama xew da nga xew da nga bari ay géer géer ñooy siisu géer ñooy siisu parce que après gis naa la ak ak euh, maa ngi koy nuy suñu sista boobu ami Amina Poté nga waaw da nga bari ay géer parce que euh, kuy géwal Aziz war naa bari géer lu neex waaw géwël bari. Eh, géwël question boobu moomoo ko waaw xaaral ma ñëw question boobu moomoo ko de. waaw dama dama dama la bëgg non non non question boobu moomoo ko moom balaa ma egg si day bari géwël dafa ma dugal a question na ma bàyyi ma répondre ko yow nga soog a. waaw ñëwal ñëwal waaw yow rek. Ah, bu ma dimbali mën naa ko. Eh, mën naa koo tontu bu ma dimbali bu ma kenn sobee comme ne Bella tey daf maa andi fii ci plateau ba tey maa mor a tocc moom fan yëpp li ñuy dund la dinañ xeex dinañ xula avant émission bi am waaw bugguma benn question bu nu nëbb na lépp leer na lépp leer moo tax man bëgg lépp leer ndax coow li bari réseaux sociaux yi TikTok bi Instagram Facebook YouTube bi foo tourné tikkee law ba ngay gis tikkee dangaa bari ay da ngeen ma gis ma wuy ma da ma gis ma ànd ak keneen ko du nabu yéen doy ngeen waa da te ndox waxuma la waxuma la da nga ànd ak kenn ku nabu dafa ni la eh, eh, bi nga eh, nabu coow li dafa bari xam nga gis nañu ànd bari bu ma àndoon ak yow léegi barki Cheikhul Khadim coow li bari travail dama man déglu ma rek lii may wax na koo dëggal mm. man ku ma àndal tubaarikàlla ah, macha allah yàlla def na loo xam ne ku ma àndal rek bu yàlla teg la loxo mm. ndax dafa taxaw leen ne lawbe lawtan la te bu dul dara lawbe dëgg la sax mais coow dafa am man tubaarikàlla macha allah mel naa melukaan boo xam ne ku ma àndal àdduna dañ lay dégg loolu far fos la. waa léegi tey ci lu baax nag. Uh-huh, uh-huh, ci lu baax dégg ci lu bon ci lu baax. waa léegi tey nga ànd kii suba nga ànd ak waa dama lay wax rek. Mm-hmm. da nga da nga ni ku koo àndal. Mm-hmm. lool loolu nga wax. Mm-hmm. kii yu ma fenn tey nga ànd kii suba nga ànd kële ginnaaw suba nga ànd kële est-ce que loolu bokk na ci ci ngor ak dëgg waxoon naa tey dina metti boo ñëwee mm-hmm. sama plateau est-ce que loolu bokk na ci ngor ak dëgg waaw xam nga tey nga ànd ki subaa nga ànd kee mm-hmm. ka ngay àndal bu dëggoo te gore rek tubaarikàlla ñu mm-hmm. rek ko ci ñu partagé ko koy àndal bu goree nga teg ko ci waaye koy àndal mu wekk la def la ni saag ba mu neex la mu ne la wekket man déggoo la dama ne balaa kenn di ma sànni fekk ma ca mbali ma toog kon yow loolu mës na la arrivé ngay ànd ak nit mu jékki-jékki bàyyi la déggoo ma de dama ne balaa kenn di ma sànni man kenn sànneegu ma parce que déjà du ma toog fu may sànni mais dama ne la dama teg sama moo balaa kenn di ma sànni na la rek ànd ak ñu baax ñi Tike dañu bëgg nga déglu ñu tuuti mhm. bëgg nga leeral yu bari mhm. kër gu ne nga ne fa naam daraame mhm. boo baaxee géer ñi la bëgg dinañ bari waaye boo yoree sa melokaan jikko boo xam ne géer gu ne nii nga wan ko pànk i mm-hmm. sa géer dina des say loxo waaye man tubaarkaal yaa def na ne géer yi ma àndal yëpp ñu ngi sama loxo mm-hmm. ah man géer yi ma àndal Nabou Dash tubaarkaal ban àndee ba tey mi ngi sama loxo mm-hmm. Amina Poté tubaarkaal yaay Papi Sou mi ngi sama loxo ana sa seex sumbulu kuy kooku ah xam nga dèjà dama ne la man géer yi ma àndal ba tey ñu ngi sama loxo bu leen ni vidéo yi mu nekkee woon ci kër gi de bàyyi noonu sax eh waay non non Aziz non non non xamu ko bàyyi noonu bàyyi ma sax bu leen vidéo yi eh, eh, mais Bella mm, mm, mm. boo ñaanee njëkk dinaa la dóor ba nga bëgg a dee ma ma ma ngir yàlla bu ñu indi vidéo dama lay dóor ba sa yëre kël kël non non jàpp leen ci rek maman yi yi mu euh, toogee ci salle bi noonu di euh, naan boisson bu ko indi maman dama dégg na yaay gaynde gi tey laay xam sa mboroo di ndeka baabooy ndalaa njëkkoo ko mboroo di ndeka du mboroo di yaay mboroo di maman Mané loo denc na non Mané bàyyi bàyyi ma Mané fii kenn ñaan la fi njëkk loo denc dana génn ci bit na la poulet télé bi la lépp di leeree fii lay xuyum xuyum tike dégg naa da ngay taasu ku am fit nga dégg naa da ngay da ngay def comment dégg naa ma for naa sax ci weewu bëy ni yaa ngi wàcc soirée gaynde yaa ngi wàcc soirée ravin te dégg naa yaa ngi wàcc benn soirée lawbe Maroc tike yow amu fit waaw dégg nga kii posé ma question pour moom damay bàyyi question bi mu ñëw daal bàyyeegul question bi question la question bi dama ci dugg ba mu jeex question bi du ma sous-estimé dara nee naa fii du ma dara dama ne danga ne kuy ànd ak bari géer gu la tooñ nga bakk mbaa joxe gu fi tooñ nag sa maala wala nga tooñ sa géwal dan lay romb dan lay romb vrut ndax nag tubaarikaal li may wax si rek man du ma denc ay loxo loxo bu ma bàyyi loxo ngi taxaw gaa yi ma bëgg jongoma naa neex naa présenté tubaari lu ma la wax la ci man la gisoo ko nii am na da <laughs> mhm. ah. di ci wax lu ñaaw bañ cee wax a gën man mhm. man laa jàppe sama àdduna mhm. di di ci wax lu ñaaw bañ cee bañ cee bañ cee wax a gën nag mm. a yàgg ak moom nag. après nga jëm sama taas yaa ngi bëgg a yàgg moom ñaata at ngeen def. Nabou bi nga xamante léegi presque xanaa léegi mu mat 4 ans wala 5 ans. Ah. waaw parce que am na fenn foo xamante ne nii nag. fenn foo xamante ne nii gaa jubawuñu mais xaw naa la fa fan tuuti. Mm-hmm. parce que Sénégal dañu baaxoo ni des fois ànd ak nit. di ko si si man dama bëgg euh, dañu oh. baaxoo di des fois dañuy ànd ak nit. di ko woy di ko tagg. loolu moo tax ma ne ko dëggu. Mhm. parce que dëggu day am fenn. Mhm. ak ngor. Mhm. di ko woy di ko tagg suba dara am ñu taxaw xas ko. wala ñu taxaw wax ko lu ñaaw. te moom je pense que booy seet ci biir waxam menul noonu. loolu moom wax dëgg yàlla Sénégalais yëpp war nañoo xool ci loolu que ni. bu la dara jaral nga wax lu ñaaw ci sa àdduna wala nga di ko def parce que. loolu temps la sax waaw bu la ko dara jaral nga di ko wax wala nga di ko def que àdduna bi dafa tàng te yàlla du nit mais bi ci topp mooy ba léegi bàyyi guma la jarul ngay kii mën naa la naa la nga foog dafay seet li ma dégg li ma dégg li ma na ne nit ñi dañ may wër nit ñi bëgg yow am nga fitu dem ci maa ngi sunu label single bu ne ci man ticket taasu ma ànd ko ak moom xam na ki ma ko àndal ah ticket bi laa àndal man sunu label dama koy wal déjà mi nga xam ne moom moom sunu label. mais dëgg la car car macha allah mën ngaa <laughs> wax mi ngi ngaa wax. àdduna bëgg nañ la actuellement xew nga yàlla yàgg mais taasu moom mais taasu moom eh, dama ne eh, eh, taasu moom ticket bu ci dugg dafa nànk rek man xam nga dama laa bëgg moo tax sa fans laa Bella daa ma déggoo ma de jege gaar taxuta bari gan kon borom gaar gi bari gan yi ku wàcc xam nga fi nga jëm day des yaa ma fii andi yéene dukku dukku géej jamax jamax gi kes ginaar ngaax yi bam ñàkk a wax ñàkk a def looloo waral ne sëriñu jare ku sa reer bay doy doota la xarani bëndi la ba bax yow waay sàmbax yi bëggëj ñu riij ii deux de saf naan la mu daan saf bëggëj eh, ñu riij wuyaay wuy sama na takk sa jabar def ca la ca war yi sa doom Abdou takk sa jabar def ca la ca war yi ngénte sa doom yee waay sàmba lu géej gi di riir di riir gi na rëng xoolal ii ana ki fii yëngal ba coow li yëngu ana ki fii yëngal bella Abdou Aziz yéena fii baaje ii coow li ne kur kaa bi ni la tëddee <laughs> man bëccëg a dégg man tem laa doon waxtaanee wala man dama invité parce que man tëkkee ñëwoon na sama plateau. ci façon ak nu mu ko neexee daal. ci ni mu ko neexee ak façon ndax dafa mel ni li ma koy wax lay daw. moo tax mu indil ma leneen di di di di bàyyi bàyyi. da nga naan ci temps moo bari lu ñëw ma dégg. li wala ki gëj a dégg bëjëg waaw bëgg na nga ko de moo tax gëj ngaa wér ku gëj lekk bëgg gëj a wér mm. nawet bi ku lekkul bëgg ñooy def xanaa dinañ ko la woon ceeb weex mais mais këram boo fa duggee ak amul bopp xar moom day fàtte bëgg parce que si wàllu viande lay doon. mais mais ticket nag ticket nag dañuy xool actuellement ni coow lu am rek ñun ñi nga xamante ni ñun ñooy nitu euh, public yi lañ koy jiiñ mu nekk affaire boo xam ne man rafetlu wu ma ko dara parce que tey ñooy ànd. suba ñooy weeroo ginnaaw suba ñooy ànd ak keneen ginnaaw waati suba ñooy weeroo hmm. loolu lan moo ci nekk sa xalaat parce que nit ki soo dee ànd ak moom mu neex suba bu naqaree war ngeen a bañ a mën a weeroo hmm. parce que loolu xam naa di nga nekk position boo xam di nga ci wax parce que xalaat naa ne côté boobu xaw nga faa nite tuuti hmm. nite nga nga fa sax amul nga fa parce que da ngay gis suñu moroom yi di ko di ko def des fois nga gis musiciens yu ànd waxante lu ne ci lu baax jëflante lu ne ci lu baax ginnaaw suba ñu weeroo mu mel ni ngor dañoo desee mu mel ni ngor dañoo manqué mu mel ni dëgg dañoo desee parce que man tikki su ma dee ànd ak yow ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu defandoo suñuy déem ak suñuy daqaar àndandoo def suñuy vidéo àndandoo def suñu ay yëpp bu safaan dikkee bu safaan dikkee ku ne war naa mën a toog sa kowe nga noppi bu safaan dikkee ku ne war naa mën a toog sa kowe bu ñu weeroo bu ñu waxante lu ñaaw te dañoo xool actuellement dafee bari suñu ngor dafa jeex suñu suñu suñu dëgg des loolu lan nga ci xalaat xam nga lu ma si xalaat mooy man ku mel ni man dèjà weerante du am. lu tax weerante du am. parce que dama amul temps weeru kenn dèjà man amul lu may làkk-làkkal sama bopp ndax ku may àndal dinaa làkk sama ngor ba dooma xamal lu ñaaw man nag sama ànd. dafa dafa dafa doon loo xamante ku ànd ak man rek ci jàmm salaam ànd mën na neex mun na yàgg xam nga lu loolu. Mhm. man su may ànd ak yow du def leen loo may xeebee ndax ëllëg a tax man saa su nekk lu may séentu seen ma nii rek mais li nekk sama bopp bi képp ci ndox ak dëtt ak dara ta Hmm. su may ànd ak yow. chaque jour damay sóoraale ne bis dana jot peut-être nga ma mere te jigéen ñi ku mer wax. loolu dinaa sóoraale bari loo xamante ni pour ba léegi loo ma mere ci kër ànd la ñu jotee ngay wax waaye doo ma wax leen loo xamante ni luy dépasser les bornes sama hmm. damay sóoraale. beneen bi mooy ku mel ni man tubaarikàlla maa fekkee démb te ñeme maa jomb wax lu ma xamul la ma xam a bari waaye ku ma mën a jotee ci këru àdduna amul kenn koy taxaw ba ma yàq la man du ma yàq nit du ma yàq nit moo tax pour yàq ma yombul. kon sa veut dire que ñi danoo xamalante ñi ñi waaw ñi yàqante te xamalante même ticket man je me bu ñu xamalante sax waruñoo mën a yàqante waaw Bella loolu mënoo ko fee jële mu ngi mel ni nga bëgg fee jële ceebu jën fii si biir Sénégal te boo ko fi jëlatee tubaab kay ñaari cin arrangé wu ceebu jën dañ koo bàqante mais suñ ci waxee tamit nga foog ni nit ñi ñu mel ni nga wax ci ñi la bëgg déglu la ma wax ci ñi ma bëgg déglu ma kii wax ci ñu bëgg ñi Abdou ko bëgg déglu ko du du xaw a wàññi tuuti parce que xam nga nit bu la bëgg mhm. des fois soo waxee daf lay déglu te mhm. actuellement sénégalais yi jox nañ la nopp mhm. macha allah yàlla sax waaw sénégalais yi bëgg nañ la te dañ lay déglu di la di la di la topp wax dëgg yàlla mu nekkoon message boo xamante ne nii war nga koo mën a jàllale nit ñi nit ñi déglu ko parce que li may gis li may gis ci su sumaa suñu milieu ñun quoi suñu milieu ngor dafay des ndax dañuy àndante tey ñu taggante di woy sama yaay diw di woy sama papa di woy lii bu réeroo amee ñu mel ni mosuñoo waxalante lu ñaar ñu leen di yóbbu voir est-ce loolu tamit ñun waruñu koo daw wala ñu moytu ko parce que ki bëgg Bella Bella doo nga ko ñor li hmm. Bella def lay def ki bëgg tikke noonu pareil ki bëgg Abdou Aziz ni Abdou Aziz solo sax noonu noonu lay solo kon ça veut dire mën naa def ni nga defee wala mu wax ni nga def loolu ban message nga ciy lancé Sénégalais yi. xam nga ma war a xool xam nga lan ma waral wax ju ñaaw ji xol yu bon yi. yu bon yi xol bu bon. moo waral nit di wax lu ñaaw te ki ñaan fonkul nguur yàllaay maye. gis ku foog ni tey jii mën ngaa tax Bella mii du am dara ndax nga sa bopp ndax dèjà wax naa la ko léegi nee naa la plateau bi nga toog am na ñu la fa yéenewul man am na ñoo xam ne bu ñu a ndékki donte Abdou Aziz même chose moo tax ma yele bu xol yi xol rek mooy nit bu ñu jëlee xol jëmbee leen tubaarkaal ku ne wut loo ca naan def ca meew mu wàcc kon doo wax lu ñaaw dèjà wax lu ñaaw ci xol la jóge ndax xol bu bonee rek nga dépassé nit léegi nag la sa xol di bonee ci nit ba ngay xool ko nit doo ko xool ba mu jeex ku ci bàyyi xool nit ba mu jeex sa xol bi saa yeewoo day gën a jeex mhm. ndax tey bellaa ñëw na ma jëlee bellaa ci catu tànkam lu daal yi mu sol yéega ba ci kaw e balaa maa egg ci bopp bellaa dinaa gis leen lu ma fa naqari ndax bellaa dina sol peut-être lu ma amul wala bellaa dina mel dina mel waaye visage bellaa naa gis wala bellaa teg na gërëbaat ma tegul wala takk na montu moo takkul ah boobaa tubaarikàlla xol ba bon mën na fa jóge kon yi wàccee ko mu suufee te xam ne yàlla mi ñu ko defaral bonalu ko benn yoon xol ba mu ruusee ba tey mhm. yàlla changé wu ko couleur ku ko changé yaa ko changé sa bopp kon nan ubbi xol yi yaatoo xol yi ñu bañ a waxante lu ñaaw léegi union fait la force mbooloo mooy doon dëggu gi nag léegi dëggu gi dëggu gi nag moom ci lay dépendre dëggu ci nit lay dépendre gis nga naafiq amul sens mhm. te ku naafiq barke alxuraan dama ne di da dégg naa ci kanam tuuti sax naa naafiq dañ leen defal marque <laughs> dama koo dégg dégg naa ci kanam tuuti fan yi dans cinq jours naa feqe dañ leen di defal marque waaye léegi booy naa feq man defal la ñaari béjjën nga ne nii ne ba soirée boo dugg di mbëkk nit ñi ah vraiment nag leen mm-hmm. balaa ñoo ne defal marque oh. naa feq baaxu wóoru te naa feq dugg àjjana mm-hmm. naa feq dugg àjjana dèjà man ñi may seetaan rek te bëgg ma ñi ma bëgg rek laay wax mm-hmm. parce que nit bu la bañee mënoo wax lu dugg ci maayinam mais ñi ma bëgg ñoom xam nañ ci kalaw bi man ku ma àndal ma sa dëggu man dama dëggu ma garab yoo mënoon garab yoo man garab yoo garab yoo dafa dëgg nii lay def pour jàdd jàdd dafa bari ay laa def waaw ah, mais yow yow yow ci biir aar bi nga nekk comme par exemple booba ak léegi nit ñi di la bëgg ngay dem fan ban jour nga ci xëy am ci lu la metti naan boo yëgoon doo doon artiste bu ma yëgoon du doon artiste <laughs> ndeysaan est-ce que loolu moom mos naa regretté toog benn journée su ma yëgoon nii naqar na la wéet nga sa néeg jooy dund ko ci ci ci milieu bi waaw waaw waaw loolu ko nettali mënoo ko nettali parce que jusque man aar waroon naa weesu fii yaa daw dara de benn question waaw déggoo li wax dama ne la loolu du daw de waxuma loolu du daw de dama laa wax léegi samay wax dama ne la man du wax lu ñaaw dama tàmm wax lu baax waaye est bu jógee tardement boobu est bu jógee ci koo xamante ni nit la wala mu jógee ci beneen góor wala mu jógee ci jigéen est-ce dama koy wax parce que man du wax lu ñaaw déjà dama la mm-hmm. wax lu ñaaw la may waxee lu ñaaw dama ko jël téeg sama xol bi te xam ne yàlla mi may fayal daf may fayal mais takk suuf bi am na takk suuf ban ah bi ñuy dégg waaw ma takk takk ni mu mel réew mi kenn du ko takk kilifa la parce que njëkkoon na est-ce que loolu du lay du ko de dama ne bi nga la dëgg la Pape Diouf sama càmmiñ la. sa xarit la sama doomu ndey la sama diggante ak Pape la ku ci dal nag tubaarikaal faaw mu am bëri dèjà mi ngi ñëw fii sax léegi émission maa koy gunge fii sax xanaa kon yàlla moo leen boole kon yàlla moo boole léegi nii si xasaa lay ñëw Papichou Abdou Aziz ñu tàggoo may suñu invité mu tàggoo ndax waxtu bi mi ñuy xocc ñu tàggoo may suñu invité bi dafa tardé li ñu waroon waxtaan dafa bari mais dafa man a métti posé bëgg ngeen wax ma lu ñaaw dañu bëgg nga wàññi wax ji waxtaan nañ ñun ci fi ñuy wax ak Abdou temps boo ñëwoon ci temps ba nga newoon buñ la waxee daa mel déggoo ma de waaye di nga ñëwaat daa mel déggoo ma de barki Allaaji Fàllu takk naa ba mel ni piercing lu ma waaye laaj ma ndax xale am naa fit sponsorisé na ma te law bay yëpp a sama digg ginnaaw gi maa la ko te loolu xam nga si dara yow mii nag ndax yow dèjà mu dul dara rek yow lu ma wax yaa ma ko yow yaa may ah, ah kon daal yaa gor samay tànk pour ma daanu ay tànkam pour mu daanu ah nit ñi dañuy ànd yow léegi te du la yéen a la gor lii ngor <laughs> wàllu ngor gi ngay wax wàllu ngor gaa ngi ne Abdou Aziz ko ñëw kii jiwoo ko ngor te tonton Abdou Aziz da woo laay moo koy gor laay lawbe dégg nga Abdou Aziz jaar fa tàggoo ndax temps bi ñuy xaj suñu invité bi dafa tardé tey waaw tardoo ma nag yàlla euh, na nu yàlla defal jàmm acca ñu bàyyi ko mu tàggatoo. ñu ko mu tàggatoo ah may may may gërëm ki ñawal sama doom ji nii ah mi ngi tudd Pape Matar ah numéro téléphone bi di. 214 35 00 Pape Matar nag ñaw nga waaye segere nga tamit nag xanaa ma jàllale ko rek waaye segere nga ndax. dina dina dina ñëw ci yow yóbbu nga ko Medina Baye mu mu ah, jonga ma loolu macha allah. <laughs> Eh, <laughs> di gërëm maman Nafi bi nga xamante ni nii moo moo ma defaral sama kanam ba mu jekk sama taaw yaay nag. moo la defaral sama doom taaw bu baaxee nday la Marème Ndiaye yaay nday Faye ak Aji ah, happy birthday sama mag jii dundal wéral ba lépp loo xamante ni waaw na am fu lay dund njaay jaata ni mbaam mujj ci tabaski yàlla mooy taaw ajara mbay mooy suñu taaw di taaw bu ragal taaw bu baax wax dëgg yàlla yàlla na la yàlla defal jàmm nga dund <laughs> ba jàmbur ami neen mi ngi lay tëkku nga dund ba yàlla may la ñu lay yóbbu màkka di la di la di la teral yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ah, mooy sama invité bi mu tàggoo nag tikke waaw ndeysaan Bella émission ma bëgguma woon mu jeex dama bëggoon mu gën a yaatu nii ba mel ni mbaaw xam nga mbaaw dafa yaatu mm-hmm. petit mbaaw wala sax mu parce que mm-hmm. déjà nit ñi dañ ma bëgg mm-hmm. maa ngi recevoir appel yi maa ngi recevoir message nit di dañ ma bëgg surtout moom tontu am nit di di <laughs> dañ ma bëgg déjà Tika Laobé ci xol leneen da saa xaju tubaarikàlla macha allah mm. eh, dama ne ak fi réew maa yaram nag tubaarikàlla koo xamante ne bëggumaa gis saa yoo yow di ma gis ndax téléphone yu tuusi sax ku defu télésitation maa ngi ci biir téléphone tuusi nii mbooti téléphone tuusi mboodi mënu cee yàlla mayu la loolu tubaab bi léegi danoo defar téléphone tuusi c'est spécial man maa ci doon <laughs> euh, fond d'écran bi fond man la kon ñàkk maa bëgg wóoru ci digg kon nag ubbilee sa xol yi daan ma ci yaatal rek jëmbeel ma ci encombré ma ci finaliser ma réew mi yëngatu mais tikk mii dafa mel ni kii mii na télé ah lii war léegi déjà euh, émission bi nga yaakaar ne émission bi plateau bi nga yaakaar ne est-ce que man jekku ma fi. jekk naa fi de. Abdou Aziz kii génne nañ nag. kii génne nañ du ma génne kenn. Abdou du dégg loolu El Hadj Ndiaye du dégg loolu. Ah, <laughs> tubaarikàlla bi may dugg ci léegi ci biir dama laa nuyu na la bon jorno plateau bi du ma fi jóge fii laay toog ànd ak Bella ak tonto Abdou Aziz di wax lu neex di rëtëmbal ci gaa yi wax leen lu ñaaw bi doon na ñett lamp am na problème nga dégg-dégg à tout moment dama ne invité à tout moment invité bu ñëwati euh. vraiment damay xool fu ma lay jëmbee siège wala ma dégager fleur yi maane nga koy wax mu teg dégager euh, maane léegi dangay ngay dégager fleur yi mhm. invité bu ñëw ñu xool vidéo mais wala ñu xatloo nii ndax yow jël nga sa place daal mais déjà ba nga dégg dëgg émission bi kenn dootuma fi génnee ah, ah, kon yàlla ko ci yàlla boole <laughs> may gërëm laay café borom café gi may gërëm waa may gërëm askan lawbe yëpp di gërëm ñëpp di gërëm tonton Abdou Aziz mi nag nga xamante ni wax dëgg faay moo ma yóbbu sunu labo ma nekk fa ak Abdou Waxab mu mm-hmm. baax bu làmp ñoom ñëpp bëgg ma instant yi bu ma jógee fa laay continuer gërëm asulawbe sama mag gërëm naa ñëpp samay jabar mag samay mag gërëm naa di gërëm Fat Bintou alias Diminga mi ma àndal sama xarit ma nga fa ma dem moo may gunge Papichou la même chose papa Nuxum sama doom hmm? mbokk mi ay Elas Mbuub mbokkum yaay Samba jaar ak Abdou dëgg du neex maa ngi leen di béggee ñëpp di gërëm waa ko ñoom papa Nuxum di gërëm fa ma jógee muy vie kër gi ma dëkk macha allah ku ko dafa ma bëgg mhm. ajaaloo sama waaji tubaarikàlla kenn du moom Adama Kambaay sama waaji moo jaar fii Adama Kambaay moo jaar fii Adama Kambaay moo jaar fii sama waaji mbokkum yaay Fandooy waa banna yaay yi ma bëgg dañ ma aimé David Pape Sall ñaari lam tool Pape Gueye neen <laughs> di gërëm laay kafe caal yi Guide-moi, esprit de la lumière. billahi paa bi